yàlla nee naa sama gaa yi mag yéen yéen a fi bàyyi yéen waa Facebook bi ñii defu maa ñoom ne <laughs> waaw fu xam jëm man maa ci yéen kontaan naa torop ndax dëgg yàlla ci ànd bi nga xamante ne yéen koy ànd ak ñun ci topp bi ngeen ñuy topp waaye bu leen em ci loolu maa ngi leen ay ñaan ngeen def li nga xamante ne moom mooy like mhm. uh, like leen page bi uh, loolu dina bokk ci li ñuy dooleel comme ni ngeen ñuy doolelee nii mhm. toog bàyyi seen i ite mhm. uh, jàkkaarloog ñun Mr Wada dinaa ñëwaat ci yow waaye comme plateau bi dama ko bokk samay nawle Black Queen mu ngi fi buur géwél tamit mu waaye an saaguma question bi nga mujjee laaj ah aja bismillah waaw dafa am loo tudda ne ku ki nga tudda foog naa mu ngi woon si house bi waaw gis nga ma jox la exemple yi Sénégal bu na période ndax digg ba tey dañoo laaka olof ku nekka laaka bi nga bugg a laaka ñu alaaw la ko nga express sa boppa ndaw si nga tudda soo seetee population bi fi mu jógee dafa bari de mhm. ñu mun ko faa seppi am na leneen lu mu wax hundred and fifty thousand nit mhm. seppi la fa am na luñ gis ci yow bu baax sax mun laa jël ne la demal foofu dëgg la loolu rek dañ ko war a value mhm. waaw foofu laay traité sa lu question euh. nañ ko encourage because su mënu doon dara di ko nañ jël keneen bu baax so fu nekka dinañ la criticiser dinañ le waaye fàtte ko rek yow nga focus li nga bëgg a focusal si sa conséquence waaw loolu moo important ñoom ñoo la fa teg ñu ne mun ngaa bidal bi mun ngaa mun ngaa riiran raay man absolument fanaa loolu mun na ko dëgg la waaw mun na ko waaw wax dëgg mu nekk jigéen ju mën góor jigéen joo xamante ne yaakaar naa eh, ñu baree bare baree bari ñu ngi jàngee lu bari ci moom mm-hmm. parce que politique yi Gambie umpale wuñ ne Euh, daj na ci lu bëree bëri bëri donc nekkuñ ci euh, waxtaanam sax. waaye wax moom mooy indi wax. waaw jàmbaar wax dëgg yàlla kon duñ def lu mooy rek euh, jël kàddu gi dénk ko ki nga xamante ne moom mooy Black Wi bu paree mu jotale ko buur gi ok sister Linguère jërëjëf um, ah, foog naa ne comme ah, si waxtaan bu ñu nekka léegi nii is it definitely very important ah, because dafa nekk loo xamante ne comme xam nga Gambie so many rumors going around you know pertaining to that that issue so loolu mu nekk loo xamante ne comme um, um, yéen a ko doon wax si olof mbaadin juubee laal Sahel Network TV yàlla boo la juubee kan dorom alla monen so programme o mi yalan komin kon kana fale nan hani bi kala hakkilo you know, anywhere you are in the, in the world, is plus 220286 uh, 0150. That is the number. Um, Sister uh, Lingen Murtakotenke, I am um, Honorable uh, Os Abuwada. aya ñinen ka collectionno dola ka ñen ka yitandala komin ko fo um, a nimari man karang walla ñen ila karango man futano ñen tembe ñen tembo to tembo mi yalan komin ko um, fo ñen because uh, ne aje ñen kono hule be kering mm -hmm. uh, gambia banko kan uh, mi yalan komin ko abe dandi mol lay ka fo mi ye komin ko honorable famata jawara mm -hmm. jawara uh, mobe ya ñen kala motale gambia politico to ñen abata ka je ñamen a torata je ñamen andum hane kam la mati musu ke la mati mi yalan ko min ko amam pare pour que give up because ay gambia la je ala fa pour que gambia la je nyato a woto nyinga ako ako nyin criticism a siyata kam bake lay banta anin hani parliament fangoto mulka criticize ka fay ko min ko ate man angale kan o so ñing wo jaabi añin wo diyamo ñing famata ka finti ñing ñing ay ñing jaabiro kuma ka walla ako ñing fata ñanta pour que angale ka ngo fole uh, just like ah, people from the united states so wala kata tala jaabiro ti ah, but um, añin honorable wada ya fo janna ko niyaje fanmata jawara ya tombong a tarta wo parliament toto i see have the qualifications mm -hmm. that was the reason why uh, she was nominated and later been elected mm -hmm. so ni atara mm-hmm. a amo qualification soto no ton no atatar laje anum fanang ar gambia is a uh, is a republic uh, mi yalan ko men ko we are guided by the constitution mm-hmm. and the constitution no nyim fana ya fala ko men ah, ko you will be qualified if you can read and write mm-hmm. so i believe no kom um, our being there should be a collective work. To come together, when you see that, okay, uh, maybe you are good at this end, another person is not, uh, you, you, know, good at that end, you know, join hands together and support each other. Togetherness is power. Togetherness, like, uh, will actually make us to move the Gambia forward. So we stop uh, criticizing people. Man, uh, Fognane, uh, the reason why um, we still have uh, this problem is that the first, the day commences schooling a child will even start speaking English, then people will start laughing at the person. So at the end of the day, hanga, so if you feel shy, you will not speak it. Te hanga, um, uh, laka dafa neka um, If you don't normally speak it, you will not be able to say it properly. So that is it. So I am saying that if I was her, I will say that, okay, yes, the, the response that she gave, that was the good one, you know. So hence, uh, she can actually talk, uh, to say, uh, you know, what's, whatsoever she want to say. It's all right. So that is it. Um, and the laughter purking in Kamina is definitely uh, very um, simple mm -hmm. because uh, ngamera nyeng yakumaka uh, nyeng kachako na jamala yalan different question but ya be natilan uh, together. a mm-hmm. uh, gambia political be a uh, tembo mi yalan a uh, jama kafale a like when they are looking for position mm-hmm. like uh, they will uh, talk you know, nicely. They will promise people, you know. But at the end of the day, uh, when they are elected, they seems to forget about, you know, the promise that they make that they, uh, they will actually uh, represent people properly. Hope uh, when you are elected, uh, you will remember, you know, uh, um, those are uh, the words that you actually said before being elected because you said you have the confidence that you will be there and we are praying for you to be there. <laughs> So how is it going to be? Well, um, as you said, mm -hmm. it mm-hmm. must be unfortunate mm -hmm. because uh, the individual, you, you have to have uh, integrity, mm -hmm. the interest in what you are seeing, and you devote yourself to the people who elected you. Oh. Look, they are the principal they are the principal. They own the assets of Banjul South. I am their agent. You understand? Yes, I will. Every time I have to knock to their door. Mm -hmm. Because at the end of the year, or at the end of the period, I'll be taking stock. It's just like you have